Touba Ca Kanam moom li ma démb laa ko wax ñoom dankan da ngaa ne dëkk bi sax boo faatoo bala ñu laa rob war war ñoo xool waaw da ngaa war a dagg douze mille francs at mi ñu ñu soog laa denc ndax Touba Ca Kanam moom ku dem mu dem ku dem mu dem te liggéey boo xam ne suñ Touba moo teg loxo nag tool gaaras gii bu vingt heures daawa ñemee génn mbedd mi daawa ñemee jaar fii léegi wax leer waa dëkk bi laqatu ma nëbatu man baara gi laa tudd ministre bu waa Touba Darou na tourné si kanam moom defe naa ne ku si kuy patriote rek war nga see bokk quoi je pense ne liggéey boo liggéey di gis preuve c'est da nga si parce que lii moom ñëpp a gis preuve jëluñu suñu xaalis comme di ko sànni pour kii quoi parce que li ñuy liggéey yëpp mosuñu gis comme ça loo xam ne trois ans la am kii ay milliards et milliards à chaque fois ngay gis preuve di liggéey xam nga affaire bi moom comme ça doonul loo xam ne comme affaire naari quoi di leen ñaanal lépp affaire bi daal ñun ñëpp la yëfi murid la quoi on est fier de di sant waat waa Toucar mi nga xam ñoom ñoo fi def yàlla yàlla guddal seen fan yàggal leen fi ci barke Sëñ Touba. na na nañ. yii ah, Touba ca kanam de la waaw. Ah. koy boo ko xutit xam nañ ne Touba ca kanam kenn mënu leen a fay kenn mënu leen a fay borom dëkk bi dong nga leen mën a fay. waaye du nit waaw ah, yii maa ngi koy dagg bu baax yii waaw mu koy dagg bu baax fi mu ne nii sax du ma xaar weer ku ma dajeel rek ndax yàlla damay jox xéewal gi ku ma dajeel rek dama koy dagg ca kanam rek. salaamaaleykum mbokk yi nga xam ne yéen a topp ci 24actu.com am nañu mbégte ànd ak yéen ci nga xam ne rek moom moo di ci bi di Touba euh, xam ngeen ne am na reportage bi nga xam ne rek jotoon nañu koo def ci yenn ci ay yu nekk fii dëkk bi euh, ñu seetlu woon na nag la ñu doon jàmbat moo di ñàkku kaaraange ak itam ay làmp yu nga xam ne euh, ñàkk nañu ko lool gannaaw loolee nag mu mel ni loolee itam tàbbiwul ci nopp ku tax ndax liggéey bi nga xam ne ak léegi ña ngi koy amal muy kuréel googe nga xam ne moom la ñuy wax Touba ca kanam ci seen opération bi ñu tuddee leeral mbedd yi am liggéey bu solo bu nga xam ne def nañ ko ba mu egsi fii euh, gis ngeen fii ni mu leeree askan wi nga xam ne itam ñoo nekkee file di rafet lu baax jëf joojee nga xam ne euh, kuréel gi ñuy wax euh, Touba ca kanam amal nañu ko maa ngi taxaw nag ak Serigne Ousmane Diaw ñu ràññee ko lool ci nga xam ne rek moom moo di ci gox bi waaye tamit sunu confrère di Arona Cissé bu Sénévision ak Zik kon ñu bàyyi leen ñu nuyoo ñu tàmbali ak Arona Arona maa ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyoo ak ñi topp ci 24actu point com waaw maa ngi lay fay Ousseynou di nuyu téléspectateurs yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan di nuyu sa caméraman Diouf euh, di nuyu Ousmane euh, di nuyu ñëpp di gërëm aussi tamit euh, waa tubaa ca kanam vraiment ci liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy def duñ ci liggéey bi bi ñu def mais ci liggéey bi nga xam ne ñi ngi koy def ndax tubaa ca kanam bari na lu muy dugal loxoom ci dëkk bu sell bii di Touba xëy na daanu nag moo dajul suuf mais li may encourager nit ñi mooy ñu gën a jàpp ca Touba ca kanam ndax kuréel la goo xam ne kat ni ma gisee seenu doxin vraiment bari ko ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem ndax euh, Serigne Touba euh, ku koy euh, liggéeyal moom moo lay téyal boppam Euh, dama mosoon a way aw wenn way ma ne bu yàlla mi ñu moom mooy kiy dogal ku dul moom doo kiy dogal mbër mu mu samp moo lay fegal pexe noon yi ba duñ la manal donte ne sax peut-être duñ ko tuddee ne ñoom dañoo am ay noonu wala ya ci aju euh, mais euh, lépp loo gis mu taxaw rek am na ñu am pas pasu jàpp ci mu dem mais am na ñu am pas pasu jàpp ci du dem mais Touba ca kanam vraiment tur wi rek tur wi rek dafa njëkk a attiré tur wi maanaam Touba ca kanam loolu c'est très important ñu bàyyi ci xel Touba ca kanam euh, rawatina nag yemuñ ci wax ji mais dañuy jëf parce que waxi waxi kese moom la maam Cheikh Ibrahima Fall waxoon ne yomal xiyam ba yàlla di fay waxi kese bàyyi jëf mhm. ñoom nag yemuñ ci wax ji xam nga ci wax la dooree woon fexe ba convaincre nit ñi ñu ñëw mais bi ñu leen convaincre ba leen laaj seen fukki yeeg seen ñaar fukki yeeg seen ñaar téeméer yi mhm. ñi ngi koy def ci loo xam ne nii tey mën nañ ko teg bët mhm. exemple bi ma ciy joxe mhm. fii ñu taxaw nii muy garage bu bu bu ancien garage bi donc gis nañ ñi nga xam ne introsé nga leen li nga xam ne ñoom wax nañu ko et cetera et cetera même xayra yamuñu ci mooy maanaam quartier yi dañ leen di jox ay cota waaw mbedd yu yu ci bare ñu def ci ay yi gën a lëndëm ñu def ay làmp mais duñ ci yem nag ak yeneen a yeneen kon li ñu gën a ñaax Ousseynou mooy ñu gën a dugal loxo suñu loxo ci kuréel gi di Touba ci kanam ndax vraiment ñi ngi laaj nit ñi lu ñu lu ñu lu ñu man mm, mais également ñi ngi koy def fu ñu xam macha allah waaw euh, mu nekk lu am solo si ñaaroon xam naa nañ ci euh, dikk euh, Serigne Ousmane Diaw comme ni ma ko waxee ñu tàmbali waxtaan bi ak laaj bi fii nga nekk ci Daaru Manaan gis nga insécurité bu nga xam ne jotoon na faa am yaakaar naa ne keroog ñuy def reportage bi sax ci ñàkk kaaraange gi ci yenn ci koñ euh, yi nga xam ne ñoo nekk fi lay euh, ñoo ci àndoon askan wi jàmbat ko tey euh, ban sentiment nga am tey bi ko waa Touba ca kanam andee fii mu leer nañ ah tout d'abord dama lay remercier Algeno di nuyu tamit suñu xarit Arona di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu topp ci 24 actu yi nga xam ne ñu si topp comme ni nga ko waxee noonu la parce que tamit insécurité amoon na fi parce que fii dafa manqué woon ay lampes. chaque jour dañ daa yónnee xale pour mu dem sax du ko du ko ñeme parce que lëndamaay bi fii jakartaa këf na fi ay euh, téléphone jàmbur ay saagu jàmbur man am naa sama benn euh, jabaru mag boo xam ne ni demee ci reportage bi keroog sax moom wax na si parce que téléphone am dafa wàcc ay 19 heures boobu guddeewul ñu ñu këf saagam jël ci xaalisu dépense ak ay ñaari téléphone yu cher te loolu boobu guddi sax defagu waaw kon léegi bu fekkee ne loolu dañ ko doon dañ ko doon kaas di ko wax Touba Kanam ñëw faj loolu mooy kon Touba Kanam defati na comme ni ko Arona waxee parce que ñoom ci def lañ dëkk mais lii dafa nekk loo xam ne nii lu nit ñi soxla woon lañ muy éclairage parce que Touba fii da nga fay ay ay ay nga xam ne sax keroog yaa ngi fàttaliku bi def euh, reportage boobu sax am na kër guñ dem goo xam ne nii da nga fa gis ab siwo sangukaay siwo sangukaay boo nga xam ne leer na kii nii na mu ci mur bi wala mu ci tabax bu eggul bi mais mënoo ko gis mais léegi nag su leeree ba yow foo mën a leneen ak leneen du yomb. Mhm. kon léegi ndegam ñoom ñoo def loolu kon du duñ man lu lay remercier leen. ak it di encourager nit ñi mhm. di leen wax ne képp koo xam ne da nga naan dagg. soo dee dagg benn da nga koy double dagg deux mhm. ku dagg ngay dagg comme ni ko waxee dañuy laaj lu mu def ko fu ñu xam te loolu leer na ñëpp ñi ngi ñi ngi ñi ngi contribuer si wàllu ndox bi jamono yi fi forage amee ay problème fii ci dëkk bi ñoom ñoo ñoo demoon jënd pompe yi ñoo def lii lu nañu def ko tey ji ñu éclairage bi nii boo xoolee da ngay mel ne yaa ngi Paris fii nii soo fi jaaroon nga seetaan reportage bi ñu fi defoon boobaak léegi matul 15 jours ak bii ni da xam ne day mel ne bokkuñ te lépp grâce à Touba ci kanam mu mel ni askan wi tamit mbégte lañ ci àndal ku ci nekk booy wax tamit day feeñ ci sa kanam waaw parce que dañu dañ leen defal loo xam la xam nga aw askan soo ko jiitee da ngay xool lañ bëgg nga koy def mm-hmm. nit ñi bëgg nañ am sécurité bëgg nañu am santé bëgg nañu am ndox bëgg nañu am tamit courant bu doy léegi nag loolu ku leen ko defal yow il faut ñu wan leen lii kontaan nañ ci moo tax nit ñi il faut ñu il faut ñu dagg Touba ci kanam il faut ñu il faut ñu remercier euh, euh, solo xam nañ ne lu jëm ci wàllu éclairage public am na ñu ñu ko jagleel euh, bu ñu gisee itam kuréel gi di ko def mu mel ni dafay am solo lool ci askan wi ban taxawaay la ñu war a gën a amaat ci kuréel gi ngir yeneen i action yu nga xam ne war nañu koo mën a def ci dëkk bu sell bi di Touba taxawaay bi bokk na ci comme ni ko sëñ Ousmane waxee rek nit ki ku lay dooleel da koy dooleel te eh, nuñ ko ci waxatee sax saako bu defut dara du taxaw te kenn ku nekk xam na ne Touba ca kanam li muy def du waxi kese jëf la jëf jooju ñuy jëf nag am na lu koy justifier c'est-à-dire que li mu bugg a wax mooy eh, demuñu di di di di di jël ay làmpi jàmbur di ko fi indi demuñu di jël ay pompi jàmbur di ko fi indi cest à que dañoo jël xaalis Euh, jënd ko loolu nag ay moyens la moyens yooyu nag mooy téeméeri taalibe yi ak seeni juróom ak seen i nangam ak seeni million kenn ku ne ak li nga am sa diir dire que dañ koo yombal ne taalibe bu ne maanaam ñaat téeméer mais ku man lu ëpp ñaat téeméer def ko koo xam ne sa ñaat téeméer yooyu ñuy wax it sa doole yeggu ci li nga man def ko parce que nag euh, kenn ku nekk am na loo tollool te nag xam sa bopp bokk na ci mhm. xam li nga xam ne nii tey da cee bokk Touba Ca Kanam bu ñu jàpp ne ak kuréel la goo xam ne ñi ko ñi ko fondé rek ñoo moom Touba Ca Kanam déedéet. Mm-hmm. képp ku Touba ñor. yaa ngi ci biir tubaa Ca Kanam. Mm-hmm. c'est très important Touba ca kanam lañ wax. Mm-hmm. kon ku bëgg Touba dem ca kanam. war ngaa mën a jiima bokk ci biir kuréel googu bokk gi du question que da ngay ñëw naan membre laa ci nangam déet même boo ci nekkul membre day participer. di dugal di dugal di dugal di dugal. c'est très important que li ñuy soññee daal di ko soññ tàmbalee ko ci man. képp ku may dégg mooy muy gën a jël loxoom di ko dugal ci Touba ci kanam ndax encore une fois je répète mooy li ñuy laaj ñi ngi laaj nit ñi lu ñu man également ñu ci parce que bu doon laaj nit lu ñu man rek nag rek rek rek bu yàggee ñu xaddi mais ñi ngi koy def fu ñuy gis si Ousmane wax na ko sànq xoolal temps période màggal mbedd yu bari fii ñoom ñoo daan taa ren nag Touba ci kanam dugal ci loxom ñu koy sant baax di ko gërëm Arona euh, Cissé euh, lan ngay tàggatoo suñu Ousmane waa xanaa di sant ak gërëm euh, El Hadj Ousseynou yow parce que tamit nag yaa ngi taxaw taxawaay bu am solo ndax ñëwoon nga fi euh, wane lëndëm leer na ñëw nga wane leer gi kon léegi day wane na yow defar rek moo la ñor leneen li ci desit mooy di soññu mbokki murit yi ak mbokki taalibe yi ak mbokki julit yëpp parce que Touba ci kanam euh, képp koo xam ne bu fi Serigne Touba nekkoon laaj la nga jox wala ki fi nekkal Serigne Touba laaj la nga jox war ngaa mën a joxe si Touba ci kanam parce soo ko joxee di ko gis li ngay joxe dañ la koy wan ne la mu ngi nii mhm. kon léegi ñu ngi ciy encouragé ñëpp mhm. di ci di ci soññu ñëpp mhm. sama bopp ak ñëpp ñu dagg ticket yi nga xam ne mooy 1000 francs comme ni waxee ku mën lu ko ëpp nga def ko ku mën lu matul 1000 francs tamit li nga mën nga joxe ko parce que ku koy sant baax di ko gërëm Serigne Ousmane Diaw sant euh, sunu nga xam ne moom moo di euh, Arona Cissé ci taxawaayam solo yi nga xam ne boobaak léegi ñu ngi koy amal euh, tey nag dëkk bu sell bi di Touba rek ñor leen rawatina jafe-jafe yi nga xam ne askan bi ñu ngi koy jànkonteel mu nekk liggéey bu solo bi nga xam ne boobaak léegi waa Touba ca kanam ñi ngi koy amal ngir jàppale askan wi euh, gannaaw opération yu bëri nga xam ne tàmbale woon nañ ko defaraat euh, mbedd yi tey jii nag euh, leeral dëkk yi ba mu leer nañ ñu daal di koy tàmbali boobaag léegi tam ñu koy wëyal taxoon na ñu ñëw file ngir ànd ceek yéen dégg ngeen askan wi kàddu yi nga xam ne yëkkati nañu ko jëmale ko ci li nga xam ne moom moo di liggéey bi kon ñu bàyyi leen ak askan wi ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko jëmale ko ci liggéey tak mu nekk nag li nga mu nekk lu am solo ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm euh, di leen jox daje incha yeneen i jotaay euh, sant Modou Diouf mi nga xam ne moo nekkoon ci caméra bi Mbaye sekk mi jàpp ci liggéey bi ñu ngi koy sant baax di li ko gërëm di leen jox daje incha allah beneen jotaay jërë ngeen jëf